ci tàmbal at bi nga xam ne ca la ñu amee indépendance ñi nga xam ne ñoo di ay jigéen ñoom ñi nga xam ne doon doon xeex ngir ñu rek euh, tekki jigéen ñi le waaye tamit fexe daal wàllum domination mën a jeex ci nga xam mooy askan wi le am na ñoo xam ne nag ay góor woon daal nekk seen wet ngir a dimbale ndax gis nañ ne foog coppite am ci lépp nag jigéen ñi nga xam ne ay militante lañ engagé wu ci xeex bu nga xam ne daal ñoo bëgg seen àq ak seen yelleef ñu mën koo am waaye tamit ci lu jege daanaka sax téeméeri at ginnaaw bañ na waaye ginnaaw loolu tamit moo ci toftalu ginnaaw bañ amee suñu indépendance woowee seen bopp ay féministes ñoom nag li nga xam mooy raay réew mi ci wàllum liberté ak fépp nag ñoom sax dañ koo gën a yëkkati fa sori waaye tamit ci wàllum aada ak cosaan ci wàllum politique ci wàllum koom ñoom gis ne li nga xam daal mooy wut nguur ak ci àdduna yëpp moo leen gënoon soxal ba tax na juddug yi nga xam ne ay kuréel ci ay jigéen ak ay groupement d'intérêt économique mi nga xam ne daal ñoo wasaarew ci gox goxaan yi le gis seen tamit ne daal bi le nga xam ne na am na jeexital bu ginnaaw ban xeexee ay at a ngi nii waaye féministes yooyu daal gis nañ ne kat bokk nañ ci wàllum politique waaye ginnaaw loolu daal projet de société nga xam gis nañ ko teg nañ ko lu baree bari ci ay naan la tukkee yoo xam ñoo tukkee ca ñoom waaye bëri ñu nga daal dañ mukk du fi amee waaye itam gis ne na ñoo xam daal ñoom daanaka sax mënagunoo dem ndax kat li nga daal mooy jafe-jafe ak i ndëgg sarax ca lañ waaye ñu gis tamit at mission bi nga xam ne am nañ ko ci libération sociale ci wàllum koom ak daal ñoo ko am waaye tam ñoom ñi ngi ci ay ndeyteef ay groupement d'intérêt économique waaye ñi nga daal ñoo leen nar a gasal kàmm wala sax ay ndëgg sarax loolee bari na fa ndax gis nañ ne daal nee nañu jigéen ñi kat waru fee am baat waaye tam loolee tax na ñu bëree bëri bëgg koo soppi kon ñi nga xam ne daal ñoo leen nar a gàkkal seen der ak jigéen ñi nga xam ne daal ñoo li xeex ngir loolee mën a am loolee sax mënuñoo déggoo kon ñoom la nga xam ne daal mooy la ñuy dund metti na maanaam injustice bu nga xam ne daal mu ngay wullee ñaay ci nag jël dimension bu nga xam ne foo ko takk weesu na ko ubbi suñuy gët xool askanu na muy doxee gis ne kat lii nag moom dafa mel ni ku mën sama rum duma te jigéen ñi sax ñoom seen bopp ñoo ci gën a ñàkk waaye nag loolee daal tax na ba ñii nga xam ne kat mooy jamono jii ñu bëri bëri daal laxasaay waat jaaju waat bëgg rek lii nga xam mooy juróom-ñetti fan ci weeru mars bi ñu mën a dégg seen baat waaye itam jigéen nag moom tax na ci nga xam ne intérêt bee ko taxoon jóg ñu bëree bëri daal dafa mel ni dañu xaw a dumóoyu kon nag fexe ba li nga xam mooy wàllum solidarité ak wàllum ah, séddale ñoo kat ñu mbal lañ di fàttee ndax gis ne bu fekkee ne jàngukaay ya ñoom kat kenn desul ginnaaw tax na kat ñu daal di kat am way bu nga xam ne du fay ba mukk waaye itam ñàkk tolloole googee jur na jiixi jaax ci askan wi waaye li nga xam daal war nañ ko gën a bàyyi xel mooy wàllum politique waaye saa suñu rek dañ leen di yëkkati ak a teg di leen tàccuroo wala loo xam ne daal mbirum poo leen tax a jóg kon nag gis na ne jigéenu Sénégal am na place bu nga xam ne lu am solo la rawatina ci famille ak na askan way doxe fexe ba li nga xam mooy askan wi jox leen seen àq ak seen yelleef ndax góor baax na jigéen baax na